never slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a Après, vous avez 4 fois so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks, this and that Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah famille du fitness maa ngi coach Iron Thiam instructeur Les Mills certifié en body attack body combat et body pump ñu ngi nekk fii ci GFC bi nga xam ne tey man maa fi nekk manager fitness bi fii tey ñëwoon pour présenter leen euh, GFC fitness day bi nga xam ne tey moom lañu organisé woon fii ci golf fitness the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I'm gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams into modestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is topical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Donc Training Day, boo xoolee li tax ñu ñu parce que bon, on a eu l'expérience à participer à des des événements Les on est des instructeurs Les donc participer ci yi nga Training Day yi nga avec des traîneurs internationaux donc j'ai eu l'occasion de participer plusieurs fois C'est là amee idée pourquoi pas Moi aussi me créé benn GFC Training Day à Dakar donc pour une première fois ici au Sénégal donc je pense que je nañ ko def avec des traîneurs qui ont ne au niveau de l'international tey nag ci laa décidé ni vraiment dama koy partagé ak sama waa salle partagé ko ak ñi nga xam ne tey c'est c'est des participants yi nga xam ne ñu ngi nekk ci yeneen salle yi ñëw fekk ñu fii à GFC ñu defandoo ko ensemble. a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I programme Grid Force bi. bon programme la boo xam vraiment programme bu xaw intense la qui, ci ki nga xamni tay da nga bëgg soxla performance day bax ci yow ki nga xamni da nga bëgg travailler sa endurance musculaire day bax ci yow parce que programme la bo xamni ne def da ngay soxla bar da ngay soxla disque mais programme la bo xamni da ngay travailler cardio bi travailler force bi mais travailler surtout endurance musculaire bi donc programme la bo xamni euh, format bi 30 minutes la mais ci 30 minutes yooyu dinañ am exercice exercices yu ñu lay jox yo xamni vraiment ak charge yi ngay charge ak barre mais nak tay ki nga xam ne débutant la mën nañ ko def mën na ko def ak charge yo xam tay dina ko permettre mom mu mën ci adapté wu def charge yu léger pour mu mën de suivre concept bi mais dal vraiment Guild Force cours la bo xam Cour, cour, bu am intensité la mais cour la bo xam tay vraiment so bëggee travailler sa performance surtout les athlètes les lutteurs les footballeurs ki nga xam tay dafa soxla performance bu koy travailler vraiment dina ci gis bopam dina ci gis résultat final bo xam vraiment

donc dina am ay travail ay phase yo xam ay lu melni tay ben benn nga mën travailler sa condition physique dina am ben partie bo xam lu mel pliométrie mo lay permettre tey nga mën a yokk sa cardio mais am aussi ay renforcement musculaire yo xam ne dina la permettre nga mën travailler sa endurance musculaire am agilité am euh, intervalle ak poids bo xam vraiment di nga ci yek sa bop te di nga ci dem ba mën brûler tay ben 732 calories

dafa am benn phase bu wax phase échauffement So, paree ci phase échauffement bi donc dañuy dañuy préférer ñu wax gars ñu changer de charge doubler cette charge suñu doubler cette charge bi dana leen permettre tey ñu renforcer les muscles bas du corps bi lu jambes, le jambe fessiers, lu melni fessier lu arrière cuisse le lu quadriceps donc daf lay dimbali bu baax renforcement musculaire tey ki nga xamné tay débutant la amna option yuñ koy jox amna charge buñ koy jox mu mën ci adapté wu ki nga xamné ne habitué la momit occasion la mu mëna challenger mëna avancer mëna yok charge am ba mën ci sentir bon pour mëna dépasser limite am ki nga xamné tay tey mën na ñëw ci benen benen phase bi mu nekk phase bi nga xamné pec la boo xolé phase bobu da ngay mëna travailler ses pectoraux yi mëna travailler ses deltoïdes yi donc yooyu dañ koy jël ak baal bi ak charge bi tout le temps donc am na phase boo xam ne aussi partie dos la amna partie triceps amna partie euh, biceps partie jambe ak partie épaule en gros je vais dañ lay permettre nga travailler sur groupe musculaire mais dina la permettre nga travailler sa endurance musculaire je travailler sa forme mën travailler sa force ba paré format bi c'est à 55 minutes te di nga ci mën dem ba la ci 550 calories A reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time You're delirious, mysterious Because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free fans donc la vraiment la vraiment dépenser maximum mais dégager sa énergie mais aussi vraiment stress permettre indi une rage de vaincre parce que combat le wax dañu indi inspiré sport de combat lu melni muay thai lu melni boxe anglaise wala li euh, par exemple euh, karaté jël ko cours sport la euh, sport de combat mais sans contact mais da lay permettre nga travailler sa endurance sa condition physique mais en même temps renforcer bu baax c'est Abdouy abdos mais nag mën la dimbali aussi nga mën a dem ba brûler 732 calories loolu mooy bëri combat bi nga xam ne tey moom la Sénégalais yi gën préféré parce que nag da nga koy def dafa avec la musique bi nga xam ne moo la ci accompagner dina la permettre nga vraiment dégager tey li nga war a pour mën atteindre ce objectif final donc ñi def du mag du xale ñëpp ko mëna def parce que amna option yu lay permettre yo xam dañ la koy wan pour nga mëna a adapté wu ci mouvement yi mëna a adapté wu ci exercice yi macha allah. donc expérience comme ni ma la waxoon sànq expérience la boo dama ko partager avec les autres salles man dund expérience avec des trainers Les Smith avec des trainers qui ont ne ci Les Smith Training Day donc Les Smith Training Day ce ñu ko def souvent C'était nous les instructeurs et les master trainers yi nga des des des instructeurs Les Smith nous nga des formateurs de Smith, donc si nous avons loolu am occasion boobu ñu idée wu GFC Fitness Day Nous koy partager avec les autres clubs qui nga xam ne tey ñu ngi nekk euh, ci parce que d'habitude nous avons def lancement yi tey dañuy jël concept lancé ko suba wala 15 jours après lancer beneen concept Nous avons tey dama jël concept le même jour pour lancer 4 concepts ci même jour ci deux heures de temps boire permettre de travailler mais bon maintenant, parce que gars vraiment souffrir mais il fallait que nous ayons l'expérience pour que nous sachions vraiment vraiment affaire yi secret résultat final da ngay Si vous atteindre objectif parce que les vraiment indi de travailler concept programme programme vraiment pour que ça ait pour que participants yi mën ci bénéficier mais nous les coachs aussi les instructeurs yi nga xamante ne ñu ngi nekk ak ñun ñu mën a ñëw participer ak ñun mën ci bénéficier ak la team Iron Junior bi nga xam ne ñu ngi topp ma ànd ak man accompagner ma ci loolu. I'm immortal. When I feel like this, remercier kay club yi ñëw kon fii yëpp ñëw fekk ñu ci euh, vraiment li nga xam ne mooy training day bi donc luñ fi ñëw luñ fi jugee te duñu euh, duñu remercier club yi fi nekk yëpp muy club euh, tey club Hawaii fitness club kaay yëngu fitness seen fitness club tey voilà ak club yi nga xam ne tey ñu ngi nekkoon ba 3B sport ñu ñëw fii accompagner ñu avec les coachs aussi yi nga xam ne tey muy team Iron Junior et les autres coachs yi nga xam ne muy coach Momo ak coach Mbappé donc ñooñu ñëpp ñu ngi di remercier ci vraiment. Euh, euh, passage mais aussi participer mais sans oublier aussi club de cœur muy la team GFC bi nga xam ne tey nekk ñu accompagner def donc chapeau à vous la team GFC je vous adore di leen ni continuer amul taxaw képp ku ci xamni dafa bëgg résultat liguey mo la koy may amul seul le travail paye amul secret donc les gens bàyyi leen toog ci crème yi bàyyi lek lekk tëdd bi bàyyi leen sédentaire bi sans di bouger ah parce que len ci fek xam ngeen ko mauvaise alimentation bi bari na léegi Sénégal ñàkk bouger bi bari na sucre bi mi ngi commencé di bari ci nit ñi cholestérol bi mi ngi bari li len mën a dimbali rek moy ngeen di def activité physique dem sport nak moma ma gënal dem hôpital Lola laay je vous remercie merci beaucoup et à bientôt